Caatu Yaraax ñëw na ku ne xam ne ni daan nekk fii ñëw na di suñu grand bu baax Caatu Yaraax ñëw na soutenir Caatu nga xamante ne ndeysaan ba ñu jaaxle moom moo ñu na ah léegi dama bëgg yaakaar naa ne bokk na ci xale yi nga xamante ne làmb da leen yaakaar mu bokk ci espoir yi nga xamante ni nii yaakaar naa ni li boot seen ginnaaw bari na muy champion bu mag waaye day bëreeg ndaanaan boo xamante ne nii yaakaar naa ne utaloon ko adversaire jafe na muy Diawdine Thiatou kere lan moo la dugal ci Diawdine auzubillah bisimilah inna walillah gannaaw ba nu sant yàlla jul si yonte bi sant suñu ñaari waajur sant waa téléphone bu baax a baax a baax di ñaan la fam sam pap fi yàlla na ko gën ñaanal sama yaay yàlla bàyyi bu baax a baax mu fekkee sama njëriñ seen sama njëriñ maam Thierno Birame Ndaawal Ndaar bu baax a baax di wax yàlla fi yàlla bàyyi bu baax baax baax a baax lan moo la dugal si ki nga xamante ni mooy Diaw Diine ndax yaakaar naa ne année avance am traîné na fu ne nga yow caatu kay rek nga jël Diaw Diine lan moo la dugal si Diaw Diine lan non loolu sens contraire la caatu kay la avance am traîné fu ne fu ne fu ne fu ne Diaw Diine amaan lam moo dox sama diggante ak moom rek ñoo moon sax Diaw Diine mais yàlla baax na daal le 18 ay wax xajul yaakaar naa yàlla na yàlla may fekk ak talle ba jour ba incha allah rabbi ma duma daan ci kàttanu yàlla. nga duma daan ko. ci kàttanu yàlla mbaaxam. mais ñu gis ni ke xam xam ku xam caatu keere xam ko ci combat bu duré combat bu met combat bu hardcore ngay bëree koo xamante ne ni yaakaar naa ne bëre boobu ngay bëri ko koo arrangé muy jaw ndax yaakaar naa moom it ay combat am combat du duré àll si da koy bëre ba mu jeex sut soo ko am. ngay bëreeg ndaanaan bu toll noonu préparation bi noo ko waajee. non xamuma ba tey de caar koy de bëggu comme est ce que gaaw eh, yaakaar naa bi mooy gën a gaaw sax su bëree xaw ma nag mu daw mais su bëree bii mooy gën a gaaw parce que bii wàcc nañ trop trop trop trop sonn de daa ma def yàlla trop 4 mois la te dañoo liggéey liggéey liggéey ba sonn waaw antek antek suñu mbokk sama gars yi dama naan rek zer zer ata mbokk Euh, nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey si dañ déplacé waa ah, ñëw boo fii ci Dalifort Daf le prince de Dalifort en l'occurrence ñu ngi ñëw seet si caatu Kairé invaincu jusqu'à présent avec un palmarès respectable respecté de 5 combats 5 victoires Thiatou Kairé moo war a bëre le samedi moo war a bëre samedi war a jàkkaarloo kan jawdin la war a bëreel jawdin moo ko jiitu ci làmb jawdin da koo jiitu ci làmb caatu kayre ñafe ñafe ñafe ba toll ci benn niveau bi war a jàkkaarloo moom samedi jël nañu entraînement jël nañu chorégraphie instant bi ci question réponse la ñu toll caatu kay de caatu kay ba Babacar posé woon na question bi dama koy posé waat est-ce que est-ce que xam nga kan mooy jawdin jawdin ci mën a bëre jawdin ci ñeme entraînement jawdin am na jël yu mu daana ah. dugal ay mbër bantamba dugal ay mbër ay ay mbër top 5 daan leen jëlu yu rëy jëlu yu amul jëlu jëlu yu amul fenn est-ce que yaa ngi sóor jaww din ci bëre ci mën a bëre. Seydina su suma demee yaakaar naa su ma demee bay sóor mbër ci lamb rek war naa mën a bàyyi quoi. jawrin amoo koy sóor. jawrin dama koy nangu lépp moo ma dàq bëree moom jiit ci làmb waaye maa doole maa mun ci kàttanu yàlla. yaa ëpp doole yaa mën waaw dama koy waxaat ah da nga bokk ci. les meilleurs de ta génération maanaam say morom ñi ci dàq bëre danga nga cee bokk te sa combat du yàgg bëri nañ ci ay combat yoo xam ne quelques fractions de seconde bi day siffler nga dox ci kaw adversaire bi jàpp ko daal noonu ngay doxee depuis toujours yaa ngi may dégg nga toll ci 5 combats 5 victoires invaincu jusqu'à présent yàlla na yokku mais dimanche samedi samedi da nga am koo xam ne dalaa ëpp expérience te des fois dañ naan l' expérience face à la jeunesse des expérience bi dafay tromper vigilance su jeunesse bi est ce que tey fukk de jeunesse bi ngay demee maa mën maa ëpp doole est ce que du la juumloo jour ji mais seen na xel bu ko fa doole fekkee nu mu koy def. xel bu ko fa doole fekkee. man maay laajaay tontu. waaw nu muy def. waa xel bu ko fa doole fekkee nan lay def. moo ma jaaxal laajal amateur yu baax a baax. yow laay laaj yow yaay tontu. Jawdin. Hmm. mun naa waat ni Diawdine dàqu maa bëri. dàqu la bëri. billaahi barki borom daaru Diawdine dàqu maa bëri sax. jour ji jour ji samedi samdi arbitre sifflé Diawdine ne la kaay ñu xeex lan ngay def. waaw waaw xam nga loolu mooy lan. bu la ne xeex bu la ne kaay ñu xeex looy def. xam nga bu la ne kaay ñu xeex lan ngay kuy wut kuy wut fu mu fanaan. ak ku ko wéetali. waaw tëjee buntu bi ren boole. qu'est-ce que ça veut dire. waaw ah, bu la ne kaa ñu xeex. mbër yu ma dajal yëpp damay bëgg a xeex ak ñoom mais ñoom duñ taxaw xeex ak man. waaw waaw mais Diawédine bis bu xeex man. waaw kenn dootu xeex ak man incha allah. bu la ne kaa ñu bëree looy def. waaw dafa woo dafa woo naar naar si guxum soow rek amaana ñun bëre moo tax sax gars yi ràññee ñu xeex bi xamaguñu si ba tey mais incha dina gën a leer yàlla ba est ce préparation combat bi jaar na yoon yow sa préparation physiquement techniquement est que jaar na yoon est ce que préparation bi aussi ci côté supporters yi maanaam mobilisation bi est ce que préparation combat bi jaar na yoon waaw alhamdulilah loolu moom ma seet naa mun naa wax ni mun naa wax ni par ku pare combat 3 mois soo pareegul mu irbi yoroo pare si xale quoi ñu ne xale tuuti lañ barki Seydina Mohamed amaana amaana làmba toll fii nii rek peuple nii toppuñ mais ñun ay tout tànk lañ ba tey nag ba tey ba tey nii nii nii defuñ suñu bopp champion defuñ suñu bopp dara ay taalib lañ ay taalib borom daaru lañ suñu bopp ba léegi comprendre nga jaww lu mu nga wax bëriwul xam la laa wax mu ñëw tous comme ni mu doon def noonu keroog gentil na ko ñëw def bu arbitre sifflé mu léema lu muy mu taxaw aka mën bàkk mu taxaw ma daan ko mu jeex mu taxaw nga daan ko dernière question dernière question une victoire une victoire ci Diawdine fan la lay yóbbu ci làmb parce que man je te connais dañuy déggante ah yow dafa am foo teg say bët mais ñi nga bëgg a bëreel ñoo ñoo nanguwul tudd sa tur duñ nangoo tudd sax caatu kayre mais une victoire ci combat bi victoire ci ci din fan la lay yóbbu waaw sëy naa instant bii dama am lu ma parce que wax dëgg fa yàlla jawriñ moom foog ma génn ci moom dooga mën wax beneen laa mu quoi fu mu toll nii nii nii nii jawriñ laay bare ah kon loolu nañ xaar après combat bi incha xaar ba dimanche wala lundi non dimanche incha allah 9h waaw incha allah ma ñëw nga jox ma réponse incha allah Babacar Fall faale ajo waaw kon kon ba tey ah. dëkk la ku xam Dalifor ah ku xam Daf Géro waaw waaw ku xam Dalifort ku xam Dalifort xam leen ci ku xam Dalifort côté côté côté côté mobilisation ku xam Dalifort xam ne dañoo bëgg làmb yaa ngi may dégg ku xam xale yi Dalifort xam ne dañoo mën a bëre Kaw Gourdin mi ngi fi di prouver caatu Dalifort mi ngi fi di prouver ñoom Esamaay ñoom Njaga euro ñoom caatu Marché yaa ngi may dégg mais dafa am seen i grand frère yoo xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon ñoom caatu Kayre ñoom Kaw Cissé Kaw Cissé mi nga xam ne dafa def lu ne ci làmb jusqu'à présent dañ ko téye depuis deux ans Kaw Cissé ñu ngi ko téye Kaw Cissé bu Dalifort euh, lancé ñu message en maintes reprises mais ba tey da ngay lancé waat message wax ak autorités yi wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci mën dara ñu jéem ci dara Kaw Cissé bu Dalifort delluwaat këram. seen naa kooku a laaj bi ma dama ci sawar a tontu parce que sama yaay ak yaayam ñoo bokk sama deret la. Ah, sa yaay ak yaayam ñoo bokk. waaw te mu demee ba dugg ci lam yàlla ak moom moo tax instant bi ni waroon na taxaw sama ginnaaw. Mhm. waroon na taxaw sama sama côté. Mhm. di di ko la bu baax a baax di waaxu di woo waa Dalifort di wax Awaña Baye Diop nañu jàppal te yàlla tax sama yaay fu mu toll dafa sonn barki Seydina Mohamed bët yi neexatul. sama yaay yu kaw Cissé. sama yaay la moo ma sama kër maam boo fa duggee buñ la waxul barki Seydina Mohamed soo moytuwul da ngay jooy parce que Modou Mbaye ñëw na foofu noonu xam na la moo nekk foofu. amaan ci situation bu critique waaw lépp sax jarul wax ci internet mais nañu nañ xool ci yàlla rek ñu bàyyi doomu jàmbur mu ñëw parce que ci ñun. libéré Kaw Cissé libéré Kaw waaw dañ ko bàyyi te yàlla tax libéré Kaw Cissé. gars yi ma may ma à la loolu mooy refrain bi libéré Kaw Cissé à la fin may leen woote ba pare ñun ñëpp ñu yuuxundoo libéré Kaw Cissé voilà. woote wooteel ñi a jàpp woo leen damay damay woote waat rek amaana woote woon naa damay woo waa Touba amabul maar di woo Mamour li nga wax keroog ñëw naa fekkuma la fa waaw incha allah rabbi dimanche damay daan sant ñëw fa dimanche incha allah rabbi di sant bu baax a baax di sant Ngañ xam nga di woo sama mbokk Bada yëpp di sant Assane Ndiaye Amet koso jëlal ma ay bëgg ay bari xam nga borom jaxataa yëpp su ma limee dama jub di woo di woo dawal ko sereet yi di leen sant ah. xam nga di sant Abdel xam nga su ma limee damay jub a a baax a di sant sama pro bi Laurent sant Laurent bu baax a baax sama maa ngi koy bu baax a di woo Abdel di woo Ba Diop Awa Niang xam nga su ma lima dama jum daal di sant suñu waa équipe bu baax a baax tey gis naa ni ma taxawoo parce que nga wootee ñu wuyu si la dafa neex quoi amaana amaana c'est la première fois ñu woote mais ñëpp ñu wusi wax dëgg fa yàlla amaana taalibe bi moo tax ak ku si ñu jox la ko di sant waa Sila ma baax a baax gis nañ waaw luñ def xam di woo gars Alexis Campbell di ko wax na ñëw jàpp ci làmb baax a baax gisaguñ ko nga ñëw jënd doole gi booy dem di waxaat seen naa nañ bàyyi sama mu ñibbisi refrain bi lenn la libéré Kaw Cissé libéré Kaw Cissé libéré Kaw Cissé libéré Kaw Cissé loolooy refrain bi di sant imaama borom Lac Rose imaam maa ngi sant bu di sant jibi son maa ngi sant bu baax ñoom grand bi del si koñ bi yëpp su ma limee da koy jur di sant Malick Loum Pape Loum xam di gërëm waa diaspora bi yëpp sama gars ñoom Al Thiam xam nga ñoom booy ñoom Pape Loum xam nga su ma léemee damay juum. di woo waa Touba di woo waa Touba ameublement di woo Mamour bu baax a baax a baax Mamour dinaa fa ñëw incha allah naa daan sant ñëw fa dimanche si kàddu yàlla. bu fekkee bi sant presse bi sant presse yëpp di sant Amady Sarr yoo xam di sant yenn gars yëpp. rafet na parce que amaana kontaan naa dama leen woo rek ngeen ngeen ñëw. jaajëf métti ma xoolal lii mu benn yoon. di leen sant bu baax baax a baax. jaajëf yàlla yàlla defal jàmm. rafet na ah, di ko wax Jawdin. waaw waaw Jawdin Jawdin am Jawdin a am nga combat Jawdin am nga combat. rendez-vous Jawdin a nga combat trois fois laa ko wax. rendez acca sama gars kon noonu la fa